عليك taal am seek oustaz bu ñëw fii teew fii joxe ziar gannaaw bi ñu ko joxe imaamul akbar imaam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé papa ñu lay ziar la ndokkeel baax di la ndokkeel si bés bi nga xam ne sa bàyyi sa waajur yàgg na di ko taxawee di si woo mbokk taalibe di ñaan yàlla yokk te yàlla ñu yokk nag ndax xaw ma dina taxaw laa ci taxawaayu ala nga xam ne yéen ko juddoo seen taxawaay foofu ñu fi yoo xam ne am te yow xam nga loolu waaye bañ fi commencé nekk 2000 la ñu may 2003 la ñu ko sañ commencé dajale seere waaye ba njëkkee dajale cent mille francs lañ xam at ba topp ma jàppale deux cent yàlla dem mu double ko mu trois cent mille ba daaw moo ci mujj am nañ téeméeri junne ak fukki junne tey ñu ngi ci téeméeri junne ak junne ñaar juróomi téeméer loolu te ñi nga xam ne tey ñoo ko dajale amul kenn ku ci am benn métier ñëpp ay elaw lañ départ ci lu jëm ci lu mag gën départ ci lu mag jëm ci lu ñu ngi ñëpp te duñ dellu def ngir yàlla bëgg bàyyi ngir yàlla dellu ko ngir yàlla ànd ak ngir yàlla lëjël ko ngir yàlla. ndax loolu ki nga xam ne moo ñu meññ muy Cheikh Serigne Mbaye mu muy rakam. moom lim ñaan mooy ñaan ko mu doon tànn bi te wóor na ko ne xam nañ ko mu teg ko fële loolu day na ñun loolu rek ne xamul leen lañ nag ñu wéroon bay bay daal mooy magi taalibe yi ñun dawee magi taalibe lañ fu ñu toll nag taalibe liggéey rek moo ko war na ak joxe loolu bi moom xamul benn sikk kon nag ci yow mbëggeel googu yàlla ko yàlla saxal ba pencam yàlla jërë ngeen jëf kon dañ baax a baax ñu am imaam Demba Lo ñu ngi lay ziar gannaaw bi nga ànd ak sëriñ bi ngeen ñëw si eh, joxe si seen ziar joxe ziar mboolu mbokk taal bi ngeen ñëw tund Kawir Caawaandoo Kutaat ak li ko wër yëpp ñëwoon ziar ji Mawlana Cheikh Al Islam Laaj Ibrahima lan ngay wax mbokk taal bi nga xam ne ñoom ñu ngi bëgg bu jëf ci bañ. sant Mawlana Seydina radiyallahu anhu ñi ngi gërëm Baye Mbaye Niass ak njabootam xale bi ci alaaji ba ci sëñ mii di ñaanal yàlla fa mu wér lépp lañu si yëngatu yàlla ak ñoom ñooñu ci dimbali bañu àndee ñoom ba léegi nag ñu ngi sant yàlla bu baax di yëg ak yokk saa yéene baatin liggéey bii nga xam ne mooy siyaar bi bu njëkk ay tool lañ daan def bay mbay di di soññi ñuy def tool yi bay yu baax ñun suñ dëkk bu ñu daan bay toolu bay at bu jot nag la yëf di bayal bay tool di bayal bay mbay tool yooyu amatut yàlla dogal siyaare bi imaam redynamisé ko ba mel nii waaye ñun ñii sëñ maay mii man mooma ci soññi moo tax nag wax dëgg yàlla depuis ñu commencé ñu ngi ciy gën a góorgóorlu di ñaan yàlla yokk li may dénk sama bopp li may dénk sama mbokki taalibe ñun ñëpp ñu xidmaal bàyyi xidmaal bàyyi nag eh, sa bakkan sa la koy defee dina laa na mu am waalo bi analoo mu jàng nangoo joxe sa bakkan bëgg naa mooy nangoo sonn ci bàyyi ñu ngi sant yàlla bu baax <clears throat> di gërëm sëriñ bi itam uh, itte bi ñu may bañ mën a góorgóorlu ci Maolana Cheikh Ibrahim lii lépp soo amee moom la moom moo ñu xiir bëggaloo ñu Maolana Cheikh Ibrahim xamloo ñu ko itam bañ mën a jëf ci moom li nga wax taalibe yi góorgóorlu neen bu baax joxe neen seen xalal def seen doole waaye lépp nag ci bu def sëriñ bi ne ko defee li sëriñ bi namoon rek mooy taalibe góorgóorlu te wax dëgg yàlla góorgóorlu nañu baax a baax ren am neen téeméeri junné ak fanweeri junne ak juróom-ñaari junne ak juróomi téeméeri loolu sant yàlla la at mu jot ñu ngi dolleeku te dolleeku bi ñëpp yëngu ne ne ñu ñëpp dolleeku nañ moo tax joxe ci Mawlana Cheikh Ibrahim ku ko xamul da ngaa xamul njëriñam moo tax. waaye ñun ñu ngi sant yàlla ndax suñ sëriñ xamal nañu li joxe ci Maolana Cheikh Ibrahim moo tax loolu euh, duñ ko duñ ko sàggane mukk duñ ko sàggane mukk duñ ko sàggane mukk kon nag maa ngi wax taalibe yi ne leen daal mbokk taalibee yi nañ góorgóorlu nañ koy téew bu baax baax li des nag mooy suñ siyaare suñu sëriñ nañ ci góor góorgóorlu baax a baax balaa moo yegg si nañ defee ci siyaare Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñu góorgóorlu itam suñu siyaare sëriñ itam ñu góorgóorlu ci baax a baax loolu daal la ñu amoon ci ay kàddu mën na ko jotal waaye ñu ngi gërëm bu baax a baax